kon waxal ma wax lan ma gën. waaw comme cinq février yàlla dogal na ni romb na. waaw te mënatul nekk. waaw man daal li ma gisoon mooy euh, mois de mai bu ñu génnee ci koor gi ah, euh, euh, mars bi avril bi ñu commencé campagne yi mois de mai ñu dem élection. ma ma ma ma. mois de mai vraiment mooy mois bi nga xam ne daal ci la ñu war a dem élection mais dem la 2 juin élection wala après décembre loolu du élection vraiment élection yu ñu war a dem mooy le 2 mai. la jërëjëf. voilà loolu la la maa ngi jégalu nag bu fekkee. non jërëjëf jërëjëf laaj jërëjëf. il faut nga sóoraale faire du travail. Mhm. moo dem mais yow est ponkal mu toll ne yow ak li sa bopp baaxee amoo looy xalaat na ma moo dem may. pour man yaa ngi wax yeneen kii yu xaw a sori. Mhm. naa may moo dem may lay jaw ah bëgguma moo dem c'est le fait du travail nan laa ci mën a organiser élection mhm. ah. kan moo ci topp. jërëjëf monsieur le président. waaw xam nga fu mu toll nii mbooloo mi dafa xaw a bëri. waaw te liste bi ñu fi nekk seen tur dafa xaw a bëri. te ku nekk bëgg naa jël kaddu. dëgg la di leen fàttali rek képp koo xam jox na la temps deux minutes. boo ñëwee nga yemale ko foofu respecté waaw. waaw dañuy ñëw sunu papa joo xamante ni boo waxee nga xam ne kii ku yàgg si jamono la bu waxee si démb nga xam ne kii ku yàgg a toog ak mag la. ku ko gis xam ni kàddu yu muy yi nga xam ne kii fu mu dugg ak fu muy génn bari na. dëgg la waaw ko waxee nag xel du jëm si kenn ku dul euh, Père Mbaye Mangoné <laughs> moom la ni tàgg euh, tàccu rek. Ah, mu yegg si dafa ñëw ci ngi si ginnaaw. ayca bisimilah Père Mangoné mi ngi noonu di ñëw ñëwal bisimilah. Père Mangoné. waaw ça va Père Mangoné. da ngay jàmm. ñoo jëf bisimilah. ayca ñu déglu ko ak ah, jërëjëf. deux minutes s'il vous plaît ayca ah, mais deux minutes naaw. Ah. nañ ko respecté woo. dégguma. ma ni deux minutes lañ la mañ. ñaari minutes. waaw waaw. bisimilah. waaw mbooloo mi ku ci nekk maa ngi lay nuyu sa far sa sant Mbaye Ngone Fall la Fally Thiendella Fally Madior Fally Yacine Boubou Fally Fadamel Amari Ngone Sabel. Mm. maa ngi nuyu nag ñi nga xam ne mooy àddina bi yëpp. waaw di nuyu Sénégal wërngal këpp. waaw boo ko xaj ci kopp bu kenn yéene sa morom wopp. Mm-hmm. waaw ah nee naa la li nga def nii kat mag ñu baax ñi dañ ko daan def. la jot Diop nga ne laatir Diop fanweeri dama leen ñett moom rek sant Diop. Mm-hmm. da daan toog ba si yàgg ndànd mu ne ñëw la ñu woote ñu waxtaan. waaw waxtaan nag tuddul waxtaan waxtaan la tudd. dëgg waaw mais yow da nga ne dialogue. dëgg waaw dialogue nga woote ab dialogue nga woote ab dialogue. dëgg ndax dañ daan footaay xale naan jal bi jëlaanoo ñebbe dëgg la ku ci sulutoo ñebbe dëgg la sa baay saxiyee ñebbe hmm. waaw mais da nga ne jal bi jëlaañoo pour ñu waxtaan ci réew mi hmm. waaw ku nekk sottantee xalaat sa gis-gis sa wax-wax li nga xamante mën nga koo wax tam arrangé réew mi rek nga wax ko ci dialogue bi dëgg la ñu bañ loo xamante lépp luy far di ànd ak président ñu bañ ko dëgg la ñu bañ lépp lu ñuy wax rek ak suñ naf sa bakkan ñu bañ ko tey wax dëgg dëgg waaw ku la waxoo kaana mu ran waaw ñuy wax dëgg rek te yàlla tax. Mhm. dëgg la yàlla bëgg. dëgg la waaw lépp loo xam ne intere réew mi la rek. Mhm. bu boo ko waxee réew mi nekk ci jaamu ñu wax ko bañ a mhm. raay sangal. par ma ngoone. waaw wax ji deux minutes lañ la may. waaw dama bëgg nga wax ma ci date bi s'il vous plaît. waaw waaw ci laa nekk nii ci laa nekk nii. mais moom il faut mu gaaw waaw nii. nit mën naa ab ab datam. comme yow président. datu kan nga am saw dat. am nga sa dat yow. waaw man am naa saw dat mais dama bëgg ñu wax dat bu yaatu. waaw. waaw léegi dat boo xam ne ñun ñëpp dinañ xam. waaw da nga may déglu da nga may déglu ak background boo ma déggoo dat boo xam boo ko jëlee na nga xam ni sa data. waaw waaw na lor. non fi jël benn dat. waaw fi kiy jël aw datam jàpp aw datam te xam ne lii sama dat la. muy saw dat yaa ko war a jàpp yow président. jàpp saw dat ne lii sama data. jàpp naa ko te datu gaa yi la gaa bëgg nañ ko muy datu élection yi. barke borom Tuubaa Mbàkke da dégg background xam fi may waxee fan la de. d'accord waaw waaw il faut nga dégg may waxee fan la mais doo toog rek ñu xel les yi naan ba sa kollu fees nga ñëw taxaw naan ah, mm, deux minutes nga am trois minutes nga am non non non non yaa ñu woo te jam ñaajo daa sori xamoo ndax damaa jël teer bi wala damaa paas wala lu ma def wala indi dañ maa indaale dañuy déglu. ba mu respecté tout non barki borom Tuubaa Mbàkke respecté laa tax ma bàyyi li may def yëpp ñëw fii tey waaw waaw waaw. mais dafa lu gaaw waxal date bi mu kaw. waa ci laa nekk nii de boo ma mayee rek ma wax ci de. waaw ayca boo ma mayee ma wax ci date bi. waaw nga ñëw taxaw jàpp ni élection ba mu neex la xaw ma foo mënti dem taxaw am ñu la brevet lëndëmal saw xel nga ñëw taxaw tey ne bàyyi naa dat wi waaw bàyyi naa dat wi dañuy xoolaat beneen dat ñu jàpp ko te boo xoolee teenu taxu mbaa guerre ba amoon la bat laa pat la bataille de Pathé Badiane mësuñ koo toxal waaw dañuy dem xeex ña fay faatu faatu dund ñu fa dund dund oh, waaw dama ni waaw non may ma tuuti a ci ñëwal ñëw ñu fi pour bataille de ñaana Njaay ak Fatou Njaay suñu yoon nekkul ci loolu waaw waaw waaw la wax mooy nga proposer date en tant que communicateur traditionnel parce que temps la dafa am ñu bari ñu war a jàll waxal sa date moo xam ban date moo sa date waaw en tant que communicateur man duma communicateur traditionnel moi je suis un waaw historien laa <laughs> waaw bañu ma ku ku ma jooy laay bañ président bañu ma ku ma ree ma jooy laay bañ waaw bañu ma ku ma ree ku ma jooy laay bañ non man dag ma jaaxal ko lan mooy loolu dama la nga jàppal ma dat waaw xanaa moo dat am naa waaw jox ma saw dat am naa dat waaw est que bu ma la joxee aw dat di nga ko jël ndax da ngaa boo ma joxee dat te mu nekk sa dat dëgër bopp de mën naa laa jox aw dat nga ne ma dat yu neexuma pér ma ngóone beneen dat laay jàpp te saw dat sax yow gëmoo saw dat bëgg gëm sama dat kon kooku da nga maa bëgg a bëri mais waxal dat bi nga am ma xam waaw mën nañ koo jàpp buñ korité ba pare buñ korité ba pare buñ korité ba pare waaw ñu jàpp élection yi nan nga def tabaski kooku sa yónnee ko ci ah kooku sa yónnee ko ci waaw ñu jàpp rek na doon élection rek. sëriñ waaw ku la wax wax ju neex. non non c'est bon c'est bon nga nga kontaan. ku la wax wax ju neex nga reetaan. waaw dama waaw guux sax la say lex reetaan. ku la wax wax ju naqari nga butti say tuñ. loolu baaxul yow. man moom tegu nu ma fii pour may tootante dan maa wax pour may joxe parole rek. d'accord waaw ah, xam nga man am naa teggin. waaw ah, rek yow moom doo toog euh, yow jàllagaloo dugal ci pala bi waaw rek xam nga man moom sunu njiitum réew duñ toog may nekk fii di benn benn la kenn waaw damal damal jërëjëf waaw xam nga monsieur le président waaw defoon nga ko fi waaw nga defaat ko mu gën a rafet waaw ndax tey dialogue bi bu ñëwee gis fi journaliste yi waaw gis fi woykat yi waaw gis fi ñu nga xamante si wàllu sport football la ñuy dox dëgg la ma xool si ginnaaw xool liste bi gis fi turam ma xam ne lutteurs yi sax du boole nga leen si dialogue bi kan la Issa Pouye <laughs> <laughs> saapuy mais saapuy kan moo ko ndil. ñëw na si dialogue bi mooy saapuy. waaw te mu nar xaw ma bàpp xaw ma lan. mër bu la jaaxal jox ko Issa Pouye waaw gis gis puy puy waaw <laughs> Issa Pouye ngoog. daa jeex léegi nag. Eh! Issa xanaa da nga jabat massa massa massa sukkar si la mais sax da nga waroon moytu sukkar puy mbër ah. non dama lay natt ko. ah déedéet waay président. mais Issa. <laughs> Eh! oui <laughs> mais sa naka mu kaay pardon ba gañuma la d'accord c'est bon. Ah, jërëjëf dama dama la nuyu nga toog ngay ala cerno toogal toogal nii. Issa ngay nga mel ni koy. acca bisimilah sopp yow rek la ñuy déglu de Issa. ah xaaral li ma li ma bëgg a jóg sànq waa. nga ni. ma la fi sànq moo ba ma ñëw quoi soxlu ne lu ko def nii sànq moo tax. song na lar waay ngay nag wax ñu lan moo xaw sa ah. Issa pardon deux minutes nga am nag si say waaw ginnaaw sant yàlla maa ngi nuyu ñu nekk ci dialogue yëpp xam nga président Macky bu baax. waaw ah, dañuy ñuy seetaan bi lar na. waaw baax acca mu gaaw waay parce que xamuñu lu muy wax lan la. acca Issa. président maa ngi lay nuyu. waxuma nga nuyoo. yaa ngi yaa ngi non non non nuyoon nga ma sànq. waaw defal dama laa bëgg wax li Issa Pouye di wax. bisimilah Issa Pouye fi mu wax ji leerul. waaw. man alaaj Cerno ma ñëw taxaw bokk naa ci làmb. kon bu Issa Pouye ñëw war naa ko mën a jottali. Issa vous avez la parole. bisimilah. Euh, merci bien maa ngi euh. na mu ngi may bu baax a baax vraiment. di nee na mu ngi nuyu président Macky Sall. déggoon naa ci dialogue ma def nii quoi que bëgg na jàmm. dégguma. déggoon naa ci dialogue mu ni. ma ne déggoon naa nee na di kontaan ci li nga def nii ndax jàmm nga woote. di ko wax ni li ñu rek ñun axlu làmb. nee na li mu bëgg ñoom axlu làmb. ñun jàmm mooy njëkk waa jàmm. nee na jàmm moo leen fi indi.